bésu gaaw fukki fan ak ñett ci weeru février mi nekk ministère la santé et de sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj ci ñaari junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari test yi ñu def ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñeent fukk ak ñett cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu euh, fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn ka importé maanaam ki jóge bitim réew waaye am nañ ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ñu tuddee cas mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fiñ ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee am nañ ci ñaar fukk ak ñeent ci ci Thiès juróom-ñeent ci Tivaouane juróom-ñett ci Kaolack Mariste ak mbuur juróom-ñaar ci Dakar Plateau juróom-benn ci Mamel ak Popenguine juróom ci Louga ñeent ci Fatick Médina Kébémer ak tuba ñett ci Diamniadio Kër Massar Mba Mbao Petit Mbao ak Ziguinchor ñaar ci Almadi ci Bambey Daara Diofior Fann Résidence HLM Kolda Liberté 6 Nord Foire Ouest Foire Rufisque Sacré-Cœur 3 Saint-Louis ak Thiaroye Azur benn ci Amitié 3 ci bopp Cité Mixa Cité Soprim Daaru Musti Diourbel Grand Dakar Gueule Tapée Guédiawaye Guinguinéo Kédougou Kër Mbaye Fall Liberté 5 Matam Mékhé Mermoz Ngor Ouakam Parcelles Assainies Point E Pout Richard Toll Salémata Sokone Tambacounda Thilogne Tivaouane Peulh Yoff ak zone de capte ak zone B ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari malade si ñi nga xam ne ñu ngi leen toppoon ci kër yi ak ñi nekk ci lalu hôpital yi wér nañu bës ni ki tey dinañu génn bu si yàlla ànde juróom benn fukk ak benn malade ñoo nekk réanimation juróom benn malade ñoo ñàkk seen bakkan bu su démb ajjuma fukki fan ak ñaar ci weeru février bi nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak juróom-benn téeméer ak ñeent fukk ak benn ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak juróom ak téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar wér nañ si juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ak benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar si malade yi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi ak ñi nga xam ne ñeneen ñi ñu ngi ci lalu hôpital yi